en tout cas bu mu fa wane lu mu warta wane kon ni ma mën a jëlee sama rakk boobu tey ñu bi mu taxawee ñu dem tëj ko te bi grâce di am tëdd na deux mois te taxul ñu grâce ko gracier ko mais ni ma def noonu tamit même keneen ku jalgate tamit sama rakk tamit mais ñeneen rakk jàmbur ay rakk jàmbur lañ mais waruñu fee gën loolu bu ñu ko doon def rek mu sévère permis à pointe ñëw léegi problème bi mais décision yi El Hadj Malick Ndiaye jël euh, fa la ñuy daanele juste que euh, damay gis euh, ñun ñëpp nañ dem Touba ñu privilégié les bus de Dakar dem dikk pour votre sécurité. loolu la wax. Euh, Cheikh Thioro Mbacké député moom moo ko wax texte baa koo wax euh, moo ko wax. nii la wax moom euh, député la. dafa war a ñun nañu dem Touba. waaw ñu privilégié. d' accord ma ah. lii d' ma donc député de la République. Mhm. yow député ñëpp nga. député car rapide yi député ñëpp nga. Mhm. am nga nag bu ñu kontaan nañ wala sant nañ le fait que Dakar dem dikk parce que li fi nekk ci client yëpp. doyut gars yi parce que ah, dañuy dem ba yegg di taxaw kon Dakar dem dikk war na mën a mat. cinq cent bis ñu dem mais venant d'un député ñu privilégié yow yaa ngi léegi ñeneen. d'accord uma foofu. Mhm. mais bu fekkee ne chauffeur yi ñoom tamit Dakar dem dikk waru nekk seen problème war na nekk benn genre modèle mhm. boo xam ne tax ñu kii li yëpp yi fi am yëpp mooy jaay doole moo taxoon mhm. jaay doole gis nga ko baaxut moo tax mhm. Cheikh Thioro lii mu wax tamit xeetu jaay doole la mooy da ngaa nekk député rek nekk ci kaw xalaatoo ñeneen te bu dee dañ ko ma ne sama rakk boobu nga xam ne Cheikh Thioro lay nooyee bu déggee lii da koy mere ci génn ci mu nekk Mbacké peut-être fi muy waxee c'est la sécurité xam nga non non déedéet non non non boo ko xasee a xaaral waaye mayuñ la dara waay mais sama gars yi li ñuy wax dafa sawaay moom day lépp moom dañuy xëccal la fële daal di lay raconter benn anecdote indi la fële mais mais loolu mooy waxtaan ce que j'essaie de. waaye non mais sax dafay xaabaabal. Oh, oh. mais xaabaabal a yow. loolu tey xaabaabal. mais daf may téye. ah non nga fayu. mais man bu saa yi la téye wala ko na la bàyyi. mais mais le poste. mais séeréer ma loolu saa yi la téye nee naa na la bàyyi. le poste du député je le poste du pour man ni da ngay comprendre contexte bi mu ko waxee. en fait. mais mais mais non ñu. bàyyi leen lay da nga wax sa xalaat kii arrogance la waxee. c'est tout c'est arrogance qu'il a fait. c'est arrogant d'accord loolu. sécurité nit ñi. moo ñu mooy priorité. xëy na sëriñ bay wax rek sëriñ bi bëggal gaa yi jàpp. waaye député bi noonu warul waxee ni dem Touba dinañ ñibbisi ak jàmm ak salaam loolu mooy priorité bi. d'accord donc Dakar Dem Dikk boo gisee mu mobiliser nit ñi. Ah, bisam au-delà même de pouvoir faciliter pèlerin ñu dem Touba. mais c'est aussi yóbbu leen ci jàmm indi leen ci jàmm. loolu mooy suñu priorité d'accord d'accord euh, euh, texte bi d'abord bëgg naa nga wax ci. bala nga ñëw texte ban ci texte non mais c'est arrogant c'est arrogant c'est arrogant non. dañuy fàtte ne mais dañuy fàtte ne dañu fàtte ne dañuy fàtte ne mais koo xamante ne nii non non du mais c'est arrogant mal communiqué la mu waxee c'est nañ wax nañ waxante dëgg gars yi mhm. euh, dañu fàtte ne dafa am chauffeur yoo xamante ne nii. Hmm. cest bi chauffeur bi le chauffeur nit la koo xamante ne nii dafa am njabootam li muy def. Mhm. ci lay def li mu war a def lépp may la d'accord mais comme daan nañ émission bi jeex na mais comme daan ko ci la c'est-à-dire chauffeur bi soo demee ba nekk ci place am cest en toute situation da ngay fexe nga nekk ci place ki nga xam ne nii moom nga war moom mooy moom mooy l'acteur chauffeur bi nga xamante ne nii dafa war a jël otoom yóbbu ci ay sénégalais ñu dem màggali bu fekkoon da leen di yóbbu rek toog problème du am chauffeur yi da ci baree baree bari pour mën a jàppale clients yi parce que nag chauffeur aussi ay responsabilité la mënuñu bàyyi ndakaaru sénégalais yi ñu toog fi bëgg a dem te mënuñu dem donc dañuy taalaat auto ñëw même bu ñuy ñëw vide ñu taalaat auto ñëw kooku noonu am na noo xam ne noonu nga war a doxalee pour compenser ko loolu li nga xam ne mooy la vrai problème mooy mhm. euh, populisme bi nga xamante ne ni le ministre daf ko ci boole mon cher dem dëkk yàgg na waaw Dakar dem dëkk yàgg na fee déparé di dem et on remercie sax Dieu bi mu ñu dimbalee suturaal ñu mhm. ba jamono yi ñuy taal bus yi taaluñu lépp ñi fi nekk nii. Mhm. heureusement le ministre ba mu amee ay ndawam di xam di def vidéo di leen woo di leen di leen renforcer. Mhm. ñu leen di jàppale pour ñu taal bus yi. Macky moo taal Macky Sall moo taal bus yi heureusement taaluñ bus yi. Macky Sall moo taal bus yi. jeex na ces accusations là très légères. non non non man non non dama ne non dama nangoo la non dama nangoo ma seex sérieux dama dama nangoo la. même Jara mu wax même Jara. non non non non faut pas gratuit. Macky Sall moo taal bus yi. d'accord allez-y. Jara argumente mais mais mais mais n'accuse pas gratuitement. jaama ci. n'accuse pas gratuitement quand ci. tu argumenter ñu ngi lay déglu mais bul accuser nit ñi gratuitement. d'abord d'abord man du ma defee nii euh, euh, euh, débat du ma la ko accepter c'est-à-dire da ne Sénégalais yi ñu ngi ñuy seetaan Sénégalais yi ñu ngi ñuy seetaan gis sa tactique bii ne doo ma bàyyi ma wax su may wax danga may arrêté arrêté ko san ne va pas parce que nit ñi ñu ngi seetaan Sénégalais yi ñu ngi ñuy seetaan bul yàq débat bi. d'accord li ngay def yëpp xam naa ko mënuloo fexe ba du ma wax. dama ne dañ doon taal bus yi. Mhm. ba muy xumaat dañ doon jël cocktail molotov di ko ci sànni. mais yéen la woon du kenn. mais mais mais ma mais ñan la woon. y' a la d' accord naa loolu. man kay sax boo ma nee y' a pas de fumée sans feu. ma mën na nangu mais bëgg nangu yow bëgg a taxaw catégoriquement di ne du yéen yéen a doon taal bi. mais yéen mooy ñan. mon doon taal bi. mais man man heureusement. alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu amee bi ñu amee euh, force de défense et de sécurité bu bu taxaw un état bu taxaw ba aaral ñu bis yooyu noonu ba tey ñu mën ñu compenser lii nga xam ne nii vide la naroon indi lu ñu suñu dem ci màggal ga heureusement bi ñu taalulee bis yëpp ma ne le problème le vrai problème le vrai problème tu sais quoi maa ngi ñëw le vrai problème tu sais c'est quoi mm. le vrai problème tu sais c'est quoi dafa am période boo xamante ne nii obligé obligé chauffeurs yi mm. yokk tuuti paas nañ leen ko nangul waaye nag état aussi dafa am ay responsabilités ma d'accord ci mm-hmm. Dakar dem dikk yi sénégalais yee ko moom pourtant mais sax loolu la waxoon. waaw yokk lu bu ëpp bi. waaw ah, kay d'accord maanaam 5000 nga def 5000 ah. dama ne non c'est-à-dire. Ah. bi sax. c'est pas problème xam nga lan la ça. saa wolof la nag. non c'est pas notre problème. lu suñ problème dañ koy fay bu fekkee ni ni mën nga euh, ma wax la li may wax non kaay ma wax la fi may waxee. c'est-à-dire responsabilité état mooy fexe ba du ñu néewal doole kenn. d'accord. mooy comme ni Malick Ndiaye léegi nag man de Malick Ndiaye ni mu defee moo baaxul. mooy la Malick Ndiaye le fait que mu doon jël Dakar dem dikk yi bus yi di ko yóbbu ba biir boo maraîcher. ca mmh. mar ca ca euh, ci garage ba. loolu moo dul yoon. mais foofu état déedéet kooku domaine privé la ñoom ñoo ko moom. Eh, waaw. c'est pour les. transporteurs c'est pour les transporteurs ça c'est pour les sénégalais c'est pour waaw mais ma rek ma àggali mais ma àggali mbër mais ma àggali donc li nga xam ne moom la ministre bi waroon def xam nga mooy lan. teg ay point de départ. déedéet communiqué. RTS ak ñëpp fay la yow nga def publicité. kon sa bopp ñoo tax. daa di ne mais ma ñëw gaay nag yéen tamit. daa di ne gaay yi képp ku bëgg a dem Touba. ci mhm. Dakar dem dëkk. Mhm. telle place am na tel place am na tel place am na tel place am na boo maraîcher bi nga xam ne nii nag chauffeur yi ñoom ñoo ko moom. ak seen i ak seen i euh, marode yi ñuy defar. mais si seen yoor ak seen yoor ak yooyu yëpp ñuy def. si màggal rek bu ko defee ñu bàyyi les chauffeurs man jaraaf ndaw bu fekkee ne nii yàkkamti naa mën naa am taxi bu ma yóbbu wala cag-cag bu ma yóbbu rapidement boo maraîcher ma jël fa sept place fay plus man la concerné loolu ma defal ko sama bopp n'est-ce mais jaay doole bi ñu jaay doole gars yi. yóbbu bis yi foofa noonu seen garage. Mm. loolu moo dul dëgg du yoon loolu xam nga la woon effet d'annonce kese la woon populisme la woon. Euh, loolu lépp nag li ko waral toujours vous savez c'est ah. parce que. essentiel bi. Mm-hmm. dañ ci ñëwul boobu ba léegi. gis nga sama gars yi yi ñuy def nii yëpp saupoudrage bii ngay gis effet d'annonce yi coow yëkkati gars yi daal di cest dire contre feu. Mm-hmm. yii ngay def ñuy def yëpp c'est juste parce que dañoo nekkagul ak askan bi ci li nga xam ne moom la leen askan bi di xaar ñu nekk ci populisme nañ yóbbu nit ñi ñu dem uh-huh. ñu bàyyi chauffeur yi seen biir garage uh-huh. lu leen neex ñu def uh-huh. parce que ñoom la concerné neex ñu def ah, waaw waaw du seen bi garage. mais sa waay est-ce que ñoo ko sax. sa xam nga uyu ma wax la. xam nga boobaa nooy def xam nga boobaa nooy def. non xam nga boobaa nooy def. xam nga boobaa yow nooy def. déedéet non non xam nga def. da nga leen fa naan ñukk. déedéet daa ñoom bu ñu nekkul ci yoon. yaa leen teg ci yoon déedéet déedéet donc nañ leen bàyyi. ñu jël seen. mais bii ba bàyyi nañ leen sax bii ba dugg ci biir. loolu nag. dafa am solution boo wax yow. par rapport ak accident yi. Mhm. c'est vrai quand même que bari na trop. mais accident nag fépp la am tamit. Hmm. du Sénégal kese il faut que ñu nangu. seulement fii daf ci am benn euh, facteur boo xamante ne nii euh, bu ñëpp nangu. Mm-hmm. mooy yoon yu baaxul yoon yu xat. mais loolu nag mu ngi ci programme bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla yéen yéen a ngi koy dérouler actuellement muy le hmm. PSE pour yaatal tal yi pour yóbbu. mu dem fépp partout. autoroute mu ngi fi loolu mu ngi fi. programme la boo xam ne nii financement yi yëpp taxaw na da ngeen di ñëw rek da ngeen di ñëw rek da di ñëw rek da ngeen ñëw rek exécuté beneen bi nga xam ne wax nga ko mu am solo aussi beneen bi nga xam ne wax nga ko mu am solo mooy désengorger Dakar effectivement d'accord nañ ci mais loolu mu ngi ci programme bi aussi nga xamante ne nii moom lañ leen fi bàyyi muy le PSE xam nga mooy lan non xam nga mooy lan xam nga mooy déedéet xam nga mooy lan mooy ngay wax investir zone bu nekk ndaw ya fa nekk bañ a dem fenn. mooy les avoir pour teg. dina def foofu commencé na. commencé lan. kon yow da non mais les agropole non non teg nañ ko ba pare agropole surtout. mooy bu programme 45 agropole mooy wax ni. agropole ah, c'est pas vrai. 45 agropole la état bu Sénégal annoncé. programme euh, Sonko la woon. Barke Mohamed 2019 Macky Sall plage. ma ne ma ne ko jox doxul. d'accord ah, d'accord tàggatoo xabaar la tàggatoo. amagu leen programme am nga xam ñoom day place encore e. d'accord moo leen jàppale. cun si bëri tàggatoo cun. c'est ça. suuf sa waay nga tàggatoo sant leen yàlla bi ngeen amee. Ah. programme bi nga xam ne moo fi. dama si <laughs> seen programme weesuwul jam ñaajo. heureusement ngeen war a dem yóbbu ko am agropole centre dafa am agropole nord am. nga yóbbu ko jam ñaajo ñu am loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci teg Ah, a e. amul leneen lu dul PSE. Thion ma baal la nga tàggatoo. E. heureusement ba ren di déwén. amul leneen. ba ren di déwén. xam nga Thion xam nga ne gars yi amuñu référentiel. ba ren di déwén. d'accord léegi nag ne amuleen. ma ne ba ren di déwén. amuleen référentiel. Ah. ba ren di déwén. sa sa gars yi amuñu référentiel. Ah, ma ne ba ren di déwén. comme gars yi nag mais mais mais. voilà merci beaucoup baal la nga tàggatoo Thion en tout cas kontaan nañ ci ñëw bi nga ñëw fii.